mais l'animal ziar naa la. naka mu. mais ziar naa la l'animal le grand ndaanaan. naka affaire yi. affaire yaa ngi rek ne ko coono waaw verre yi dama koy bëgg nag l'animal verre yi moom daf may neex quoi. jaajëf waay. jàkkaarloo yow nga sol daf may neex. ngi rek ngi rek l'animal l'animal ñu rek naka coono Ouais, ouais, ça va, alhamdulillah. Dama tëddoon sax après gis live bi là. te temps yi dafa sedd fii quoi. Il fait trop trop froid. Hein? loolu laa dégg. Ouais, yo, ñu ngi fi ay ay moins 1 degré ñu ngi côté dans le nord-est. temps yi moom dafa sedd trop trop trop. mais yàlla baax alors naka mu ça va. ça va l'animal ndeysaan loolu yàlla bu ñu ëmb. ah l'animal ah, yaakaar naa ne le roi des arènes Modou Lo bëri na sa première kaddu bi may laaj l'animal mooy l'animal waaw boo gisee combat Modou Lo Siteu noo ko jàngatee voilà bi xam nga yàgg naa ci def sama pronostic waxoon naa ne les deux combattants ils boxent pas dans la même catégorie quoi bokkuñ hmm. mais li yëpp feeñal na ko parce que Siteu c'est vrai waxoon naa ne combat bi mooy sama premier interview ci combat bi yaa ngi fàtte dama ne c'est pour chercher de l'oseille da xaalis mooy combat wu xaalis la parce que public bu mu am la si défaite la jógee Siteu bu fekkee ne lii maa ngi dégg sànq yaa ngi naan mais mu ngi teglante ñaari défaite ba pare gën a am popularité si làmb ji mais lii bu continuer nit ñi dañuy dem kenn dootu ko seetaan moom lii nii combat bi dafa waroon a ñëw teg ci bakkanam moom loolu la waxoon ne day dagg bopp sa waay dana ko koŋ dana def lii mais bu yegg si woon bëre sax taxaw ñu daan ko sax boobaa euh, gannaawam dana rafet mais yow combat boo gisee mu am public nit ñi bëgg ko parce que li mu nekkoon ter nekk guerrier man déggoo nee naa la comme moom si ghetto bi la jógee ba yegg si fii donc ça veut dire guerrier la mais lii nii ak li mu doon wax yëpp gis nga gor sa wax ja man dama ne la bu taxawee bu ñu xeexee saa waay dana ko dóor dana ko dóor dóor yu métti mu gaañ ko te ñëpp xam nañ ne premier round bi bu taxawoon combat bi day jeex foofu nee naa risque risque bi ma laajee risque yu Modou am ma ne mu koy dàqe ñu dem ba ci saa koy Modou Lo tarxiis def erreur loolu force cas force majeure la te gis nga presque non la demee mais li ni gor sa wax ja mo nek fi nan du bouger du def dara nan dag sa bop mais na dëggal mbir bi yëfam gor la mais bu dee lii man promoteur lan lañu def li tax lamb Sénégal mënta avancé bu dee li do avancer nit do préparer combat pendant 6 mois ñu fay la xaalis supporter yi spectateur yi sponsor yi ñeu fa depuis 11 h ñi veillé guddi gi yëpp ñu nek fa ba ci ngont combat boo xam ne ñaari dix minutes muy vingt minutes mënul leen a satisfaire euh, kii bi nu mu public bi loolu c' est pas logique c' pas normal moo tax Aziz Ndiaye naan nañ def trois rounds c' normal wala ñu def soumission bëre bi dañ ko war a rénover mu mel ni MMA moo tax bu gars yi naan MMA gi fo mbër yi dañuy dem léegi Allemagne buñ naree continuer nii làmb day dee fadam lu leer laa la wax buñ naree continuer nii làmb day jeex gis nga nit ñi léegi MMA lañ gën a soxla gis nga rëg rëg venin bi mu demee parce que nit o préparer six mois génne euh, nit ñu fay la ay centaine de millions nga yeg si combat bu ñu ne la nga daw génn saako yi ay tarxiis kii daanu na kii daanu na. nit ñi dee naf si tamit tegul stratégie boo ne nii mooy pour nous suivre combat mais lii c' est pas une stratégie payante une stratégie ça doit être payante stratégie day am njëriñ d' accord naa mu ñëw si peg saako yi Modou Lo sonal ko mu génn. mais moom la da taxoon mu ñëw moom du pour jël titre bi jël couronne mi moo ko taxoon léegi yow boo xamee ne devancé nañ la six points avertir nañ la ba nga xam ne bu combat bi jeexee yow yaay perte arbitre yëkkatiwul sa loxo dem nañ xooli vaar na ngeen dellusiwaat mais léegi ni man sama bakkan laay teg oui le problème j'en ai rien à foutre sama bakkan laay teg dem songu waay xeex lu ma ca am jël mais yow di négocier combat stratégie boo xam ne buñ la jëmalee nga daw jo def na ko si Lac de Guiers bi jeexul sax mu dem toog sa plateau bi pour moom lii victoire la lii taxoon ma ne lii du komba waxoon naa leen ne Modou Lo combat bi taxu koo jog nañ leen wax de dëgg yéen ak naan Modou Lo Siteu ak Balla Gaye loolu day combat Siteu lan la def da teglante ñaari defar naan da ngay jël Balla di jël empereur loolu mooy lan wala moom rek a nekk si làmb ji booy gis nga fanam lii bu ngeen ko continuer làmb ji day jeex c'est fini kenn dootul ñëwati foofu sponsor yi dañuy daw ñëpp dañuy daw nit du teglante ñaari defet ba pare ngeen koy jël di ko jox ay combat yoo xam ne ay centaine de millions ñeneen ñi nekk foofu ñu ñoom ni ñoom kii kii kii kii sëy Alioune Seye teglante ay victoire ay keneen ki ki nekk si Eumeu Sène la te Doudou Sané teglante ay victoire ñuy góor ñii di góor Doudou Sané lan la ko Siteu ëppale daf ko ëppale poids lan la ko ëppale lan la tax ñooñu di teglante ay victoire Zarko ngi nii di teglante ay victoire kii di teglante ay défaite ñu koy jox ay combat mais dañ leen wax dëgg làmb ji il faut ngeen logique gis nga nit bu waxul dëgg wax la ca nekk nit doo teglante deux défaites ba pare ñu lay jox combat vedette loolu c'est pas normal li tax làmb ji da ngeen da ngeen de ba MMA dana ko jël lu leer laa lay wax loolu mooy lan teglante deux défaites ñu lay jox combat vedette naan Balla Gaye Siteu mel ni dafa am victoire yow kii daw làmb ji yëpp nit ñi veillé combat bi nit ñëpp teg sa stade ba fanaan fa ñi xëy ay treize heures ñii di ci di di def nekk defuñ dara lu ñaari dix minutes ngeen war ko may supporters yi nit ñi kontaan ngeen war a xeex war a bëri sa waa ji ne bëreet ngeen war a def corps à corps dóorante ba yëf yi saf géej gi tax yow lii bu fekkoon ne MMA la nga xam ne day am barrière day am cage bi est-ce que rëg-rëg eh, foofu fi rëg-rëg doon combat yi est-ce foofu man na daw lan a tax ñu def grillage donc ce qui veut dire que bu grillage amoon nan lay def waaye nañ leen waxante dëgg fad fadam xoolal gis nga dañ leen wax ne dëgg bu ngeen nekkee naan làmb ji da ngeen koy rénover da ngeen bëgg mu avancer te nit ñu duñu wax dëgg Siteu na dem fële na dem bër na na wàcc ba ñoom Sa sax dañ ko dépassé moom lan la def kan rek la daan kan la daan du du du Sa Thiès ki da dëggal maanaam kii kii Papa Sow Papa Sow la daan koo xam ne fin de carrière da nga ko daan ci la bàyyee làmb nga bëre ta Tine kii Lac de Guiers di daw làmb ji bañ kii ko bi jeexul sax nga dem toog sa plateau contre Modou Lo tamit nga yegg si lu nekk nga ko danaa dagg boppam danaa def lii menacé fii nit ñi ne Siteu bu yegsee day rey boppam nga xam ne lii dafa waroon a toog ne tey sama bakkan bi mooy def si arène bi wala ma yóbbu couronne bi loolu la ko waxoon. yow nga génn dafa mel ni dafa mel ni Siteu dafa tegal Modou Lo piège bu Modou Lo mënta liir. waaye non du piège Modou Lo kaay ma expliqué la Modou Lo sama dëgg laa lay wax gis nga nit nit rek nga mën a doon nit doo jinne doo malaaka Modou Lo dafa am tànn tampe la na tax ma ooyee ko zigéey mooy un guerrier mooy bañkat mooy koo xam ne ni bañkat la gis nga bi ko Bombardier jekkoo dafa waroon génn saako yi génnul bi ko Balla Gaye jekkoo dafa waroon génn gaayar saako yi génnul loolu mooy guerrier loolu mooy un lion mooy mooy mooy vraiment mooy loolu loolu la ñuy wax gaynde un vrai sénégalais loolu mooy gaynde léegi nag Modou Lo boo gisee Balla di ko daan mooy tempérament bi mooy bu tension bi monté l'adrénaline mont nga xam ne le cœur bat plus vite loolu nag moo ko defee si Siteu mooy li ko Siteu dugal kii xëpp ko si suuf Siteu def ko provoqué sotti ko a wala dara si diggante ñaari tànkam Modou Lo avertir at bi di waxuñ dara mais nit nag nit nga mën a nekk sa gaynde bu meree dënn bi day battre plus vite xol bi di métti loolu nag moo énervé woon Modou Lo ba Modou Lo comporté wu comme buy bëree bàll ni muy comporté woo noonu la comporté woo mais Modou Lo kenn du ko gis mu bëree ni yow Modou Lo nan lay riitalee Siteu jiital bras devant bi xoolal bras gauche bi au lieu mu dóoree bras gauche bi mais bras en arrière bi lay dóoree ba pare Siteu jàpp loxo mooy tikk njara bi avant bara bi yow avant bras bu ko nit jàppee li ngay def mooy tourner rek jàppaat ko wala fi mu ko jàppee noonu fi ñaari pouce yi mooy pouce bi mooy baaraam bi ak bii fu mu dajee nii xam nga boo jàppee loxo nit sa ñaar baaraam bi nii lay daje léegi xaaral deux secondes moon xool xar matet portable gis nga sol sita gis nga nit buñ jàppee sa loxo te nu nii la léegi buñ jàppee sa loxo pour nga dindi ko xoolal mooy avant bras bi mooy fi fi mu sewee nii ngay ñëw ba ba nga xam fi ñaari baaraam yi dajee nii voilà ñaari baaraam yi fi mu dajee nii foofu bi fi mu daj mais moom loolu lana tax deful noonu pour mun ko kor pour mën a dóor mais problème bi parce que il était énervé mais man maa ngi dégg dafa énervé maa ngi dégg maa ngi dégg suñu mbokku tarkindaa yi nga xam ne ñoo yor li. waaw ñu ngi naan Siteu daa mais mais bu sàccoon doole bi mu ko takkee noonu. Modou Lo wetu ko lu kon du sàcc doole ma ne bu ko sàccoon doole bi ñu jàppante Siteu jàpp ngemb jàpp benn loxo bi Modou Lo wetu ko may ko wet loolu lu kon koy xëcc ci jaay ko doole mais la tax mu rafu. loolu moom ci loolu tax ma ne Modou Lo ku xas ba roof moom. da nga xam ne kii dafa man la si Fadam combat bi fan la doon neexee. waaw bi mu loolu ni bëri dàq sa waay na ko taf taf sa waay kii saa waay toog bañ a génn def ni booy ñaa génn si premier round lu kon danañ gis combat bu neex lu kon sax Siteu bu daanoo sax danañ xam ne kii gaynde la kii li mu wax def na ko. mais contre Lac de la la waxoon danaa samp sama tànk danaa la def ni daw combat bi bañ gañe ko bi tamit mu waxoon ne danaa dagg sa bopp bi roi bi danaa ko jël danaa la ko laaj boo bañee ma foqati ko dagg sa bopp ong la sa waay ne bërët ñëw nga daw mu ne waat bërët ñëw nga daw mu lay dàq ba tarxi si bi biti saako yi mais loolu du combat ba pare na nga gàddu sa centaine de millions dem sa yoon ba pare ngeen ne da koy préparer beneen combat boo xam ne contre Balla Gaye mu jàppaat ay centaine de millions ana yeneen mër yi ana ñoom Doudou Sané ana ñoom kii Alioune Seye ñi nga xam ne ana ñoom Zarko wala ñoom wala Siteu rek moom mooy nit parce que gars yi ay opportunité la ñuy xool nan la ñuy gañee xaalis léegi ñoom seen poos lañ xool mais duñ xool duñ xool public bi seen satisfaction duñ xool sponsor yi seen satisfaction duñ xool amateurs yi seen satisfaction ñoom seen poos rek la ñuy xaar te Siteu bu continuer nii public am bi dañ koy mujj bàyyi man bu ma doon fan som tey bàyyi naa ko parce que man guerrier pour xoolal fadam ah. góor da ngay nekk góor boo dundee sa kanam rafet boo dee sa gannaaw rafet góor warta daw jigéen mooy daw xoolal taxul ma la man boo may rey xoolal bu yeboo ti vas me manger comme un poulet rôti mais man du ma dawalal sama benn moromu góor benn defet bi ma am fi MMA gaan bi def na ma kele comme ni ñu ko defee Malick Niang ñëpp di yaakaar ne damay fëgg ma bañ ne di fëgg ñëpp ne tekk foog ne daj étranglement lañ ma dóor ba mënatuma nokki sama bët yi per yi dem arbitre bi sëgg di xool pour moo wan ne maa ngi nokki sama tànk laa doon yëngal ba mujj gi ñëpp a jeté oppose ñu arrêté combat parce que dama ne góor comme man nga jekkuma may fëgg pour ñu arrêté combat bi góor xoolal góor yàlla du daw yal benn warta daw ak ay fal warta daw nga koy koy dawal sa borobu góor mu yor ay loxo nga yor loxo mu yor tànk nga yor tànk muy lekk ngay lekk mu ne xaas nga daw génn loolu mooy lan fan ngay gisa yow gisoo gisoo temps yi guerre mondiale yi yi ñoom Lat Joor ñi ci dawoon ba léegi seen maam ñu ngi leen koy toppee naan sa maama dawoon. l'animal il faut booy korom nañ wax ni dëkkuwaay góor du daw. l'animal il faut nga souffle tuuti. ndax man maa ngi jot ay information yoo xam ne nii waa la waa waa waa Kër Cité ñu ngay zibilé nee nañ ñoom daan nañ modloo. xaaral ma sol ruus bi sax nga xam ne lii mooy danger. waaw bii moo gën a tàng ndax bii bu ko tarkindaa yi xoolee xam ne l'animal mii xolam neexul. xoolal amul dara lu ñuy ciblé lii ñoom dañu waroon a yot génn man bu ma doon supporter yi bu ñëwee dañ koy taaj réunion ne ko saa waay kat public bi nga am yow kenn yaa ko am si làmb ji lay topp yow dong yaa am si làmb ji yaa ëppale public lana tax ñu lay topp du sa rafetaay du sa mbaax xam nga lenn la mooy jom ji ngay défendre les couleurs de jàmm gën di wane ne jàmm gën ay góor yàlla ñoo fa nekk comme premier combat bi daw nga bii combat couronne lañ soxla nga wax ne da nga dagg boppam ñëpp ne Siteu soit mu dee si kaw mu dee foofu si arène bi wala mu nil ñu couronne bi yow sa moromu góor nga gën ko njool lu nekk nga wax mu ne nga daw booy Fadam góor ko daw yow stratégie ma ne day peyant stratégie boo ko defee day payante. ma bu doon stratégie dafa woo Modou di xeex Modou Lo waaw ma ne léegi on a Modou léegi nag Modou Lo mu génn Modou Lo ñëwaat une deuxième fois mu génn troisième fois bi mu jaxasoo ba ñoom ñaar ñu génn léegi nag problème bi mooy biñ demee ba nga xam ne combat bi des na quelque temps nga xam ne moom wóor na ko ne bu combat bi arrêté moom mooy perte léegi nag bu dee une stratégie payante la indi eh ma damay dem ba jeex lu ma am jël bu ma ci am amee ndam sama kanam raf sama kanam rafet bu ma ca amee defet sama gannaaw rafet mais bu ma ñibbee ñëpp xam ne góor laa te bu boobaa public bi doon ñëw ndax man ak sponsor yeeg ak amateurs yi danañ wax ne au moins tenir na Modou Lo ba deuxième round xam na ne day perte bu ñu arrêté combat bi looloo tax mu joxe joxe lu mu man voilà guerre guerre la la guerre c'est la guerre xeex xeex la. nga ne man combat bi Sénégal ak transportation combat bi tolloon. bi Modou Lo te si te Modou Lo ñoom ñaar ñu xeex ñu atte jéggi leen saako ñu dellu si loolu bu la fekkoon lan l'animal nan lay doxalee. jëf da euh, si si ban si ban domaine nan laay doxalee si nan. c'est-à-dire lan ngay wax Modou ndax booba Siteu dem na ba euh, ku mel ni ku mel ardo. non xoolal def ardo bi problème bi gis nga ardo buñ la doore sa R4 day gis nga dóor yi ko dóor mooy biñ génnee saako yi la. te bobu Morlo yi laa baissé sa garde. voilà c'est vrai damay deug sama deug la lay wax modlo combat bi xam nga nan lako beure moy comme modlo buy beure ak balle Gaye moy day ñew ak tempérament wala ak khadaram voilà nga xam sañ-sañ day ñew ak la haine nga xam modlo du contrôler l'expérience xolal xam nga modlo buy beure ak balle il met la force devant et l'expérience derrière mais yeneen combat il met l'expérience devant et la force derrière mais il dafa jël la force et la haine devant ba paré jël expérience bi daf ko derrière loolu n'a lana tax xawma ci ta ko provoqué xawma dafa am lu ko ta wax mais nag lolou nonu, ça n'empêche pas c'est un zigay. bul faté ne moom c'est lui le détenteur du titre moom mo yor couronne bi bu ko neexoon bi Siteu génnee benn yoon génn ñaari yoon ba combat bi des ay cinq minutes bu ko neexoon mu toog relancer combat bi mais ba léegi mu ngi gën di avancé Siteu war a def assaut yow Modou Lo Siteu jàpp ko nii jàpp loxo bi ni jàpp yëpp mais lana tax mu jàpp loxo Modou Lo bi pour pour daf dafa gisoo bi Modou Lo rëccalee loxo bi rek ci la ràccee daw am na lu ma tiit quoi man dama jàpp ne waa daal ayuñ ci Siteu dafa waa parcelle ay si lan mais mais koo xam ne mais mais mais Sadam nañ leen wax de dëgg Sadam xoolal fi ay analyse nañ lañ nekk ay décortiqué nañ waxoon te dëgg lini nii ça n'a rien à voir ak cité biñ doon gis ci plateau yek open press di di xok lu nek nan man nan man nan lan la doon wax di fëgg dënnam nan man yal din la man bay Faal la man bo damay deugal sama bop mo Lo ne ko gis nga ciow li bëri na mais bobu buggee yëf kay jour ba nga deugal sa bop te du bobu yaangi dem nak ak Lo ni si duplex bi mo Lo nan kan man lima ma bëgg rek moy nga deugal sa bop wa nañ wax dëgg te du Modou Lo loolu la ko doon wax yaa ngi toog si peggam mu naan Siteu yow na nga dëggal sa bopp mais lana tax ñu ne xóob mu daw génn yow te du yaa ngi nii dañ la menacé mais si stade ba yaa nga ca parce que da nga wane ne góor nga booy dee na nga dee mais ak sa dignité yow jour boobu boo toon si làmb ji lan la nit ñi di wax a ba ci say sët dañuy toog di ko li naan Fadam de moo fi nekkoon benn spectateur seen maam la Siteu waxoon doo doo ñëw si stade bi te mosut a tardé làmb mais bi yoon kenn gisu ko mais ñëw nga parce que da nga wane tu es un homme tu nag noonu la waroon def. moom nga ne nga ne Siteu wartu bëri Balla Gaye numéro 2 comme ndax l'animal yow gis nga ci muut loolu war a daan Balla Gaye. ma ne nag bu combat bi taxawee xoolal ça sera le combat xoolal ña xoolal mooy combat bi combat bi mooy c'est le combat xam ne c'est le plus haut niveau mooy relancer wat lamb. mooy tax lamb xoolal rek seen premier combat ba. ay ay média yeeg. kii mais mais mais yi mu ngi buxante buxante métti ah. waaye ma ne eh, ko. waaye ma ne bu waaye ba combat ak bàll gi taxaw gis nga ñaata lay waaye ma eh wax na ko si Lac de Guiers wax na ko si Modou Lo nan la def di daw bu bàll ñëwee tamit day dawaat gis nga kii lan lay profito mooy public bi mu am. ba pare sponsor moy ki promoteur yi ñom xaalis lañ soxla ndax mbolo mi am mais nak nañ waxante deug nit ñi nañ le public bi public beeg amateur yi nga xamne buñu daggé ñu seen billet seeni VIP tok dañu bëgg xol xex xex yu métti di rat mais yow nit ki di daw ñaari yoon ñu genn sa koy tarxis nga gàddu say centaine de millions dem mais lool c'est pas logique gars nañ bàyyi intérêt personnel bi ñu sóoraale amateur yi bu dee nii la ñuy def làmb kenn doo gis benn mbër bu ci tuuse pile de trois cent millions parce que dafa yomb looloo tax Aziz Ndiaye ne nañ def trois rounds parce que nit da nga war a xoolal xaalis de dëkk bi dafa dafa métti xaalis dafa jafe ñëpp xam nañ ci dara ay millions da ko war a ñàkk da nga ko war a mérité ay millions pour gaje ko du yegg si rek daw ñaari yoon vingt minutes nga daanu fee jóg dem sa plateau garde say centaine de millions nit ñi di dee fii ñii ñii di xam fii ñii di mbooloo mi ñii di rey seen bopp parce que mooy seen amour gis nga nit que li mu bëgg Sénégalais li mu bëgg depuis suñu maam yi ñoom Lat Joor ñoom Samori Touré ñoom Kunta Kinte suñu maam yi c'est des des guerriers ay bañkat lañ Youssou Ndour way na ko nee na gaynde bu kii yande ko du gaynde bëggul mbuum yàpp lay dundee Youssou Ndour ne jom jooju mu ngi fii masu fee jóge suñu maam yëpp masuñoo def gannaaw te ku ko weddi na nga jaar sa fa jaar mais loolu képp kuy senegale képp kuy diiñ da nga ko war a wane góor du daw demal demal ba jeex boo bu xoolal boo ci deeyee sa gannaaw rafet boo dundee sa kanam rafet. góor man xam naa ne Siteu bu seetaanee lii dama ragal mu jël droitam bi dóor ko ci téléphone téléphone bi toj ko. ndax lii mais mais mais dëgg la non non Siteu Siteu Siteu ñoom instant fii may wax ak yow nii jël Balla gi duma ko lu bëgg. waaye ma ne xoolal kii warta xoolal balaa muy jël Balla Gaye Sa Thiès ci la jaar Sa Thiès duma ko daan ko mais si Siteu kan la daan bay ñëw si Balla Gaye benn combat la daan mooy mooy Papa Papa Sow fin de carrière ay ñoom Doudou Sané ñu teglante à vos victoire ay Zarko ay ay ay kii Alioune Seye 2 yow ñaata mbër ñoo teglante ay victoire. duñ leen jox yow koo xam ne ñaari yow fin de carrière nga daane ba pare yow jógee fa te kookoo def action sax à la dernière minute nga ko wéyale kii lan la def si lamb ji bay mérité naan day bëreeg Balla eh combat bi mooy Balla Gaye ak ak la zigéey yi Balla Gaye Modou Lo loolu mooy eh, combat bi loolu parce que Balla kii kii daa yor empereur kii yor roi madame déglu ma l'animal nag l'animal nag foofu boo fa duggee nag Ah, gis naa la yaa ngi bu weex bi yaa ngi woote jàmm waaye ndax Modou Lo mën naa daan. non non non xaar xaar xaar. l'animal ndax Modou Lo mën naa daan Balla Gaye. kaay ma ndax Modou Lo mën naa daan ñoom ñaar dañu xiifante. Balla Gaye l'animal ndax Modou mi ma gis bu diib bi ma gis démb ndax Balla Gaye si mi jàkkaarloo Tapha Tine barki Dembo Ndiaye bu ko ërtalee ëmb ko dugg ca falan ba xeex ak moom ca kaw jeexale ko suuf ndax la ni maal la ni maal ndax Modou Lo mi mu gis mën naa daan Balla Gaye waa kaay kaay mu wax la nag léegi nag secret boo xam ne bugguma ko woon a wax tey nag da tax ma yow lan laa la lan laa la wax live bale waxuma la ne combat bi combat de test la pour Modou Lo mais li ko soxla mooy contre Balla te du suñu dernier live bi loolu laa la wax ne la la test bi bu dóoroon Siteu rek Siteu di kay kay lox boobaa Balla day dem INSEPS waaw buy combat bi jeex rek Aziz Ndiaye yóbbu ko INSEPS mu préparé na ko Modou Lo bii kat la zigéey bii dafa gën a kii léegi nag lan la nan la nit ñi di wax Modou Lo safara si wàññi na Modou Lo nangam loolu lii nag mooy stratégie mooy danaa gaña a gaña gañ boo xam ne nii du ma wane léegi ñëpp ne ab Modou Lo niveau mu ngi xaw a baissé bu boobaa Balla da koy ñeme nag Balla danaan aha kon nag c'est la moment ma mën a jël roi bi boolekaak sama empereur bi nekk le chef lii nag lii nag mooy stratégie Modou Lo stratégie la def bu wane woon safaram dëgg Modou Lo bu bu ko neexoon bi Siteu dawee mu mu topp ko di ko riital mais gisoo daf ko négocier négocier ko pour wane waa camp ñoom Aziz bi fu mu toll nii lan la nit ñi di wax Modou dafa énervé Modou Lo dañ ko jàpp Modou Lo indiwul forme ba mu doon indi léegi nag Balla pour Balla jël combat bi rek gis nga Modou Lo tant que daanawul Balla ba toog si gannaawam du bàyyi lamb Modou Lo ñaari defet ñaari nit a ko daan muy Bombardier te Bombardier si bàyyi lamb la jëm léegi ki yàq parmerasam ku tax parmerasu Modou Lo du du la par palmarès bi nga xam ne depuis bëri existe Sénégal ba léegi ki battre le record des palmarès. mais mais lan ma ndax yaa ngi xaar Modou Lo téye numéro 2 dindi taas bi nekk fii ci ginnaawam bi ñu tëx ak Balla Gaye numéro 2. non comprendre ma nga ne. ndax Modou Lo mën naa dindi taas bi nekk ci kanamu Balla Gaye numéro 2 ndax Balla Gaye daal daan Modou ci aller daan Modou Lo ci retour. combat boobu balaa ma ciy wax il foog mu taxaw. bu taxawee ma ci wax ma que dama koy denc suspense te xam nga ne yaa ngi fàtte suñu live bële ba ma ne la ba ma la waxoon ne tafaatin du ma ko jox secret yëp no du ma jox Balla Gaye secret yëpp parce que bu daanee tafaatin peut-être mën na dajeeg la zigé yi yaa ngi koy fàttaliku. est ce que yang koy fàttaliku. maa ngi koy fàttaliku ba ma ne la wala même bu may dimbalé balle diko jox stratégie pour mu dan tafaatin rek la mais duma ko jox bagage yi ma jox modlo Lo parce que boba numéro 2 dégg goudi yi mu ngi état de front bu doy waar. wa waaw parce que dafa yag parel modlo xamone na ne modlo day dan cité te bu paré ñom ñaar dañuy dem. parce que xam ne mod information bu lèr nañ. la wa wa Balla Gaye numéro 2 néna paré na pour bëri modlo paré na pour bëri cité te Aziz Ndiaye ma ne Siteu ñaari eh, ma ma eh, parewul pour bëreeg Siteu xam nga loolu loolu stratégie la boo gisee Siteu gi Siteu gi yëpp pour waa mu waa kawu Modou Lo la mais Balla gay yow ku sa rakk daan Siteu yow bu dee Siteu ngay soxla Siteu ñi bëreeg moom xaalis a tax mais Aziz Ndiaye doom ma wax ne xaalis lay ut si làmb ji Baye Ndiaye ba boole ak sita ñëpp xam nañ ne Balla Gaye ku sa rakk daan yow Balla Gaye lan lay soxlaa boo gisee ñu naan Balla Gaye Siteu yow nga topp ci Balla gay Siteu pour waa kaawu Modou Lo d'accord mais waaw kaawu Modou Lo day d'accord lii ma ne la combat bi day am comme gëléem ak gëléem ak tukkal lay dog ñeme fanaan biti ragal fanaan biti combat Modou Lo Balla Gaye day am te ça va battre le record loolu mooy tax lamb ji gën a jogaat xoolal ñu ne troisième rencontre entre Balla Gaye ak Modou Lo booy lëb zigé yi génn booy booy Balla Gaye génn ku ci nekk jógee victoire Balla Gaye bi nga xam ne ñëpp dañu waxoon ne ñëpp waxoon ne Balla Gaye euh, Tapha Tine du ko daan ak ak ak ni Balla Gaye daanee Tapha Tine ba pare Modou Lo teglante Ama Baldé Boy Niang teg ci Siteu ba pare war a dajanteeg Balla loolu mooy la guerre la la guerre entre ñaari gaynde ça la la loolu mooy loolu la nit soxla loolu la amateurs yi soxla mais amateurs yi soxla wuñ Siteu ak Balla Gaye yow si Siteu bi nga xam ne Sa Thiès ko téye coob ko Lac de Guiers téye ko coob ko contre Modou mu ñëw daw ngeen naan ko contre Balla waaw lan la nag lan bëgg yéen da ngeen bëgg bu ngeen organiser tey combat benn amateur du ñëw wala waa waa jàmm nga ni rek kay ñëw waaye eh, faram xoolal eh, xoolal yow chroniqueur nga reporter nga waxal dëgg ji dëgg ji mooy mënoo teglante ñaari defet ba pala ñu lay jox un empereur fu ni empereur bi amul combat roi bi amul combat te ñaari kuy duñ bokk benn malka il faut ñu xàjjale yow lan la taxoon Aziz Ndiaye doon def empereur pour pour pour pour reyante ci ba Balla Gaye daan tafaatin parce que Aziz Ndiaye dafa bëgg bu Balla Gaye nekk empereur dajeeg roi bi léegi nag entre l'empereur et le roi ku gagné nag yow yaay nekk buur yow yaay nekk la vrai yalbin waaw combat boobu kan koy teg naan Modou Lo Siteu Modou Lo Siteu lan lay kii Balla Gaye Siteu communication am nee na moom kenn mënatu ko cee génne ci diggante Balla Gaye Modou Lo kenn mënu ko wax gis nga nit ñi déggoo déggoo nit ñi da ngay jëf nit ñi lañ bëgg kani wax wax naa wax a wax contre Tafatine bu ma ko jàppee danaa def nii bu ma ko jàppee at dafa mujj daw. contre Modou tamit ñëpp wax nañ yow góor sa diggante góor ak góor bi arbitre bi ne xëpp boobu mais boobu Siteu dafa war a sonn suul ay tànkam comme ni mu ko waxee. ñu raag ba kenn daanu. léegi lan ma lan moo tax yow nga rêvé Modou Lo bëri ak Balla Gaye numéro non parce que loolu mooy làmb ji loolu mooy taxaat làmb jóg kii dafa yor empereur kii yor roi kii naan man maay buur kii naan man maay buur léegi nag yëf yi nag dana leer nañ ko organiser dans amul xaar dans deux mois Modou Lo pare na Balla pare na. Bousse Bousse Kédé lan la ni maanaam suuf leen tuuti si euh, yow l'animal euh, le grand champion du MMA. yaramam ah non couche bu rouge la sol xaaral ma sol bu rouge ah, voilà ah. c'est le danger. Ah, le danger la la guerre. c'est la guerre. waaw yàlla lii yàlla lii yàlla si tànn voilà.